mbokk téléspectateur leeral TV ak mbokk internet leeral point net amati nañu mbégte comme ni ñu koy defee saa su ne sol suñu dàll dem ci gox ya goxaat yi génnee la nga xamante ne bi rek moo di réalité dëkk bi tey nag dañoo doxantu fa li nga xamante ne bi moom moo di cité Nouvel Horizon Nouvel Horizon benn gox la bu nekk ci commune bu Sangalkam ci département bu ci jamono ji nag ci inondation yu metti la askan wi dundu yoon ya yàqu nañu kër yu baree bari jamono ji nag ndoxu taw bi daf koo nangu loolu nag askan wi di ci dund lu métti métti di ngeen gis image yu daw yaram yoo xamante ne bii tey dinañ ko wane ci leeral TV ak leeral point net ñu itam taataan kàddu askan wi ñu wax ñu dëgg-dëgg jafe-jafe yi nga xamante ne bii rek ñoo ngi koy dund ak itam lan moo ko jur jamono ji Nouvelle Horizon nekk cité bu nga xamante ni pratiquement depuis 2008 lañ fi commencé dëkk boobu ba léegi nag wax dëgg fa yàlla ñu ngi fi doon dëkk amuñu woon benn jafe-jafe mais bi ñu ñëwee nag ba 2020 lañ commencé am jafe-jafe jafe-jafe gën a am nag mooy surtout inondation inondation yi nag li ko indi ñun li ñu jàpp mooy ndox bi fi muy jógee dafa sori mu ngi juge d'après li ñu xam ci techniciens yi wax ñu ko moom mooy day jógee ba jam ñaajo jaar kër njaayloo su ñëwee kër Ndiaye Lo ñoom ñu génnee ko mu jaar ci tali bi dugg ci travaux yi nga xamante ni Azur dafoon na ko fi mu génnee si Nouvelle Horizon donc Nouvelle Horizon nag ndox bi daaw fi woon toog ndox bi bu duggaat Nouvelle Horizon da daan génn jaar Sédima jaar SN City dem ba Lac mais malheureusement pour ñun euh, tabax nañ ci yoonu ndox bi ndox bi mënatul jàll su ñëwee ba fii Nouvelle Horizon fii lay yem ren nag ñu dund lu gën a métti parce que dafa benn tool bu doon jël ndox bi yëpp kër Ndiaye vu que ñoom dem nañ ba sentir ni ndox bi mënatul génn si ñoom parce que tool bi fees na ñu daaneel miiru tool bi depuis que jour bi ñu ko daanelee ba léegi euh, image yaa ngi fi ñun amatuñ jàmm ndox bi fees na fi dell mënatul dem leneen yi tamit li ko indi tamit mooy bokk na say si sédiment aussi wax dëgg fa yàlla ñoom tamit victime lañ comme ñun jël nañ ay mesures yoo xam ne tey euh, c'est juste pour euh, préserver seeni investissement te tout à fait normal waaye tamit loolu Euh, indil nañu ñun tamit ay jafe-jafe parce que tax na day ndox bi mënatul jaar foofu dem moo tax boobu ba léegi nag vraiment ñu ngi dund jafe-jafe yu nga xamante ni soxla nañ tamit appui wu état parce que tey li ñuy dund état dong moom moo ñu si mën a génnee mairie bi c'est vrai que jéem na mais amul moyen yi mu war a am yëpp. vraiment aussi may may waxaale ne tamit sentir naa man de ma part personnelle en tant que délégué de quartier absence su bi wax dëgg fa yàlla deux trois ans yi passé yëpp donte nekkul woon maire ba ni mu nekkee maire chaque année daf ñu doon soutenir bu baax a baax mais ren vraiment ñi mu fi bàyyi tamit góorgóorlu nañ ci mais moyens yu doyul état aussi avec connaissance yu ñu am am nañ benn pompe mais pompe bi tamit amuñ sax fu ñu ko déverser sites yi ñu ko war a déverser yëpp ay situ jàmbur la wax dëgg fa yàlla mayuñu benn sens pour que ñu déverser ko fa donc moo tax tamit ñuy interpeller autorité yi ñu ñëw taxawuñu parce que tamit si dëkk bi lañ bokk te tey ñu ngi nekk ci zone boo xam ne titre foncier la ñu def si suñu alal ay nit dëkk fi vraiment soxla nañ soutien wu état mu ñëw jàpp ci ba ñu dund ba ñu jugee ci lii ñuy dund. waaw parce que c'est vrai que ñu ngi ñuy wax ni am na ay projet mais projet yooyu xamuñ kañ la ak kañ lañ ci kañ la ñu ciy génn donc moo tax ñun soxla nañ ndimbalu état du mu gën a gaawee. tey euh, dañ fi ñëw pour euh, wane la source mooy source sunu problème fu mu jógee. parce actuellement ni ñu ngi cité Dabax parce que cité Dabax gis ngeen ndox bi sama gannaaw ñoom tamit ndox bi mi ngi jógee jam ñaajo ci péage bi par bu jógee péage bi jaar par Kër Ndiaylo jaar fii site Dabax bu fi jógee nag waa cité Dabax gis ngeen seen pompe yi ñoom dañ koy pomper mu dem ci tali bi te ndox bépp ndox bu dem ci tali bi ci ñun lay mujjee am na tool bu muy traversé mujjee ci ñun te comme ni ko délégué bi waxee ñun amatuñu fi ñu yóbbu ndox mi amatuñu fi ñu yóbbu ndox mi ay famille ñu ngi dund ci ndox mi bu guddeeg bëccëg ak ay conflit ngi judd entre ñu ak suñuy voisin parce que lépp ndox bee ko waral parce que ndox comme ni ngeen ko xamee ndox kenn du ko baare dañ koy utal yoon te ndox bu amul yoon aussi day nekk ci benn place wala boo ko baaree mu jëm utal boppam yoon te bu boobaa du doon lu neex nit ñi ah c'est la raison pour laquelle ñu ñëw ba fii. pour wane source problème bi fu mu jóge ah ba fu muy yegg parce que tamit euh, ñun suñuy propres moyens lañ yor pour fair face ah bon jéem nañ cotiser ba à une somme de huit millions pour euh, la prévention prévention mooy jéem a barricade wu mais malgré tout njox mi moom boo ko bari day jàll day utal boppam yoon te mu utee boppam mu utalee boppam yoon tamit nekk ci biir cité bi mënatul dem ah autorités yi jëm nañu jàppale euh, indi ñu benn pompe. mais problème bi mooy fan la ñuy pomper parce que sédiment la ñu doon pomper sédiment aussi comme ni ñu ko waxee ils sont victimes en même titre que nous xëy na dinañu mën a jàppale ah dañuy ñaan rek ñaan ci njekk ñu jàppale ñu ñu mën a fo pomper ndox mi au moins pour famille yi nekk ci ndox bi xaw cee génn euh, d'autre part aussi am nañu si ay dëkkandoo euh, HLM ñu nekk à côté ñoom am nañ fa ay terrain vide yoo xam ne nii actuellement nii tamit ñu fooy fay pomper suñuy ndox. mais ñoom it tamit euh, xam naa neexu leen ah, bon ñu ngi ci ay waxtaan ay négociation ak yooyu mais daal euh, pour expliquer leen daal métti na métti na métti na te vraiment ñu ngi utu wàllu daal si ku ñu mën a jàppale. gis nga fi ñu jóge Cité da la ñu jógee gis nga ni ñu impacté yoo foofu ñooñu ñoom ñooy jëlee ndox mi à partir de Diamniadio ñoom bu ñu ñëwee foofu inondé ñoom ñooy déversé ci kaw tali bi fii ñu nekk nii mooy Cité Idi Samb en face Nouvel Horizon. ndox mi bu duggee cité Idi Samb dafay def tout droit dugg bii cité Nouvel Horizon jàll dem Sédima continuer yoonam dem Lac Rose mais trois dernier années yi vraiment dañ ci sonn trop parce que actuellement ren moom dañu gën a impacté wu ndox bi jàllatul waa Sédima amatuñu fu ñu déverser tëj nañu seen yoon Nouvel Horizon moo fi des ndox mi fi nekk am ñun tamit amuñu fu ñu ko déverser HLM lañ doon déverser HLM amatuñu fu ñu fa déverser léegi ndox mi mi ngi externe wu biir Nouvel Horizon sonn nañu torop bëgg nañ tamit kuñ si jàppale kuñ si dimbali parce que am nañ ay impacté yu bari yu nga xamante ni déjà ñoom génn nañ seen ay kër abandonné ko te du benn kër du ñaari kër. inondation bi moom sonal ñu rek la def parce que population baa ngi nii amatuñu benn temps bu ñu génnee pour liggéey dañu am problème amuñu fu ñu jaar ak seen oto yeeg seen tànk yi amuñu fu ñu jaar même société bii ñu nekk bii nekk à côté nii dafa am ay problème problème yi mu am mooy fu mu gaaree ay otoom amu yooyu nag moom c'est yooyu daf fi bari yooyu bari na fi maladie yi bari na fi bon te ñun liñ ci yaakaar yëpp mooy fi mu nekk nii les ministères l'état rek lañ ci yaakaar parce que maire bi fi nekkoon nekkatu fi il a des problèmes il ne il ne il ne il ne peut plus réagir donc fi ñu ci yaakaaree nit nag moom ñi ñu ci yaakaar mooy waa état bi. surtout nag le ministre Amadou Ba nañu dimbale le premier c'est lui le premier ministre na ñëw jàppale fii. waaw comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi nii nag ci biir cité Nouvel Horizon gis ngeen mbedd yi ni ñu mel mbedd yaa ngi gis nga kenn mënul jàll fenn fu ñuy dem bitik fu ñuy dem dañuy xuus sonn nañu torop te gisaguñu benn autorité étatique bu nga xamante ni nii ñëw nga biir Nouvel orison ñëw dimbali ñu suñu maire lañ doon gis mu ñuy jàpp ak waa Nouvel orison cotisé nañu nit ñëpp cotisé nañu cotisé cotisé presque ay huit millions ñu ngi koy def te ku ne xam na ni ñun munuñu lijjanti inondation inondation domaine état la du domaine du compétence maire mais ñun waa Nouvel Horizon suñu jëkkër yi ñu ngi cotisé mais somme yi ñuy cotisé bari na huit million ñu ngi ko ciy def def nañ ay doo daan mais ndox ku ne xam na ni que munu ko tiye fu ñu kale ndox mi awaat fa ca des mënuñoo génn feebar yi arbis yi ñëwaat na ci cité bi jigéen ñi sonn nañu suñu doom yi sonn nañu dañooy ñaan nag ministre bi yor affaire inondation na ñëw kam commune de sangal kam sonn nañu à partir de Diamniadio Cité baax Kër Ndiaye loo seen City ñun ñëpp a impacté wu Nouvel Horizon na moo ci gën a impacté wu parce que ñun dañoo baa eau yiy jógee si kaw yëpp ci biir Nouvel Horizon lay ñëw daanu si pompe nañu ba sonn dañ daan gis suñu monsieur le maire muy ñëw di ñu jàppale mais ren gisuñu ko parce que ku ne xam na ni fi ñu ko dugal jàpp nañ ko tëj nañ ko ci kaso bi mais daf ñu daan ñëw di ñu jàppale mais ñi fi nekk au moins ñi ngi góorgóorlu ak waa cité bi ñuy ñaan nag autorité yi nga xamante nii ñooy autorité compétent yi nañu ñëw ñu xool waa Nouvel Horizon xool waa Sangalkam sonn nañu torop nañu ñëw dimbali feebar yi bari na weñ yi bari na kenn mënul génn ak sa oto kenn mënul liggéeyi xale yi mënuñu dem bitig ba jaan yaa ngi ci biir cité bi di dox chaque jour dinañ rey lu mat juróomi jaan te loolu wóorul insécurité totale lañ fi nekkee nañ ñu jàppale ngir yàlla waa autorités yi ñu ñëw gouvernement bi nañu ñëw dimbali ministre bi na ñëw xool ñu lii population munu ko gérer maire mënu ko gérer ndax du domaine de compétence am te ñu ngi def suñu ay cotisation ñu ngi def lu nekk nañu ñëw nag ñu jàppale ñu ngir yàlla ak yonent bi sonn nañu torop malade yaa ngi fi weñ yi yoo yi jaan yeeg lépp a ngi ci biir si Cité Nouvel Horizon ñuy ñaan nag ngeen yàlla ak yonent bi ngeen ñoo jàppale ñu. en fait am nañ fukki cité yoo xam ne moom maanaam euh, euh, comité bi moom la ëmb comité boobu nag euh, maire yi moo ko sampoon ah dem na ci gox yu nekk ah boole cité yi nga xam ne ay voisins lañ ñu booy leen ah créer benn comité de prévention et de gestion des inondations au niveau local donc les pi les comités taxawoon nañ leen ñu ngi liggéey donc la mairie donc ci appui bi nga xam ne ah moom prometté woon na ko communauté yi parce que la mairie a voulu maanaam responsabiliser hein, donc les les, les communautés à travers euh, de la mise en place de ces euh, ci ci kaw comité comité de gestion comité yooyu nga xam ne dañu ko taxawal nga xam ne communauté yi ñoo ko seq ngir ñu mën a xool ñoom naka la ñuy fagaroo ba euh, xeex mbënd mi seen i seen fañ dëkk loolu donc loolu moo sabaloon maanaam lu taxoon ñu samp communauté yooyu ci ndigalu maire léegi comme comme ni ko gisee ci reportage bi ah ak ni nga gisee si image yi donc la one la là ci euh, au niveau de cité euh, Nouvelle Horizon ah, donc vous voyez comment euh, cité bi nu mu nu ko mbënd bi envoyé envahiré ah, donc gis ngeen taana ah, environnement bi dégradé wu na donc les populations maanaam jaaxle nañ. effectivement déjà ku wax ndox rek wax yoo ku wax yoo wax feebar te donc ñu ngi nekk ci période nawet ndox mi déjà tool bi muy jógee ndox bi dafa taawoon depuis daaw. bi muy génn dafa xeeñ ñuul kukk donc loolu ñun mu ñuy causé ay ay problème yoo xam ne sax ci santé la parce que tey jii euh, yooyu fii guddi ñëpp xam nañ ni kenn du mën a nelaw ndax ay yoo te ku wax yoo wax ci biru voilà loolu tamit wax dëgg fa yàlla bëgg nañ ko ñu ci taxawu mosquée bi aussi pour nit ñi julli ci dañuy ñëw difficilement parce que ndox mosquée bi yëpp actuellement ndox moo ko entouré benn côté rek la des moo tax ñeneen ñi pour ñu ñëw dañuy def tour bu rëy pour egsi ci bi voilà yooyu yëpp ay jafe jafe yoo xam ne ñu ngi koy dund te wax dëgg fa yàlla bëgg nañ ku ñëw taxawuñu fi c'est vrai que nag on a fait beaucoup d'efforts ñun les habitants de la cité ndaxte ren rek minimum minimum dépensé nañ presque huit millions ci ay ci inondation yi jëloon ay précautions mais ndox c'est très difficile pour nga nga téye ko donc ut na beneen yoon dugg na ci cité bi te ndox bi tamit jugewu fi te ñun mënuñ ko jël def ko feneen li ñu mën rek moom mooy woo les autorités ñoom ñu ñëw jël ci ay ay ay ay précautions. ni ñu koy dundee actuellement nii parce que euh, investissement yi def dañoo jéem a reprofiler sunu tali yi. parce que dañ ne woon ndox comme mënu ñàkk ñu même su ñëwee ñi ne au moins nañ mën a circuler ci biir cité bi mais même loolu yëpp actuellement ni nekk na ay jafe-jafe parce que nit ñi pour ñu circuler ndox bi bari na bari goo xam ne ni mënuñ cee xuus euh, actuellement nii euh, kenn mënul nelaw ci siddé bi ndax mbott yi xam ndox am moom mbott yi dañ fa nekk danañ yuuxu guddi ba bët set yooyu ah, feebar gi siddé bi actuellement nii euh, am nañu école bu mag ci biir cité bi te ñu ngi jëm ci ouverture des donc vraiment jur nañu jafe-jafe yoo xam ne daal vraiment xamuñu fu ñu koy expliquer. xale yi mun mënatuñu génn maladie yaa ngi fi feebar yaa ngi fi lépp a ngi fi feebar yu raar yi sax amul woon bu njëkk léegi xale yi ñu ngi arbi seen tànk yi parce que cité bi foo génn da ngay xuus ñun jigéen ñi sonn nañu trop parce que ñun ñoo fi nekk ak suñu njaboot ñuy ñaan nag autorité étatique yi nga xamante ni ñoo nekk si gouvernement bi ñu ñoo jàppale ñu. na sédiment ñoom wax dëgg yàlla dañu impacté wu comme ñu ñu impacté woo parce que ndox bi fa la daan jaar mais ren dañu tëj seen yoon mënatuñ fa dem ñuy ñaan nag diggante Kër Ndiaye Lo cité Idi sàmm Nouvel Horizon ba euh, sédiment ñu am benn comité bu nga xamante ni dinañ taxaw ci mbiru ndox mi ndax ñu jigéen ñi sonn nañu Nouvel Horizon mënuñoo génn mënuñoo génne suñuy doom bu ñuy dem bitig ba dañuy xuus suñu jànq yi dañuy xuus feebar yaa ngi fi yoo yeeg weñ ñi fees fi dell bëgg nañ daal vraiment autorité yi ñëw dimbaluñu suñu maire lañ daan gis muñ ci daan jàppale ren gisuñu suñu maire parce que ku ne xam na suñu maire mi ngi ci euh, mi ngi ci kaso bi ñuy ñaan nag suñu borom yàlla autorité yi xam ne yéen a ngi ñuy dégg waa gouvernement bi ministre de l'environnement gisuñu ko gisuñu benn ministre bu fi taxaw te ñun ay ay ay ay ay nit lañu comme ñëpp bokk ci commune Sangalkam bokk ci société bi na ñu ñëw dimbali loolu daal la ñuy ñaan yàlla ñu ñëw dimbali ñu. wàllu économie suñu surtout ñun ñuy gérer fii société ñun ñoo gën a sonn ñun ñoo gën a sonn ñun dañu am problème pour génn on a tous les problèmes du monde pour sortir. donc dañuy am ay rendez-vous yoo xam ne nii day nekk dans ligence am na yoo xam ne guddi lañ koy dox parce que dañuy def euh, dañuy def beaucoup de service am na services yoo xam ne guddi lañ koy dox. mais mënuñ ko dox parce que ndox mi moo tax suñu moto yi ñu yoree pour def des libraison on ne peut pas sortir à une heure de la nuit a cause de l'eau donc il faut ñu dimbale ñu il ñu dimbale léegi nag ñu ngi euh, gën a tàllal suñu loxo ah muy état ah muy état ñu ngi koy gën a tàllal suñu loxo mu bàyyi ñu xel nga xam ne kat ñu ngi dund situation bu metti bu doy waar maanaam njaboot yi sonn nañ borom kër yi sonn nañ ñëpp sonn nañ. te lii il faut état euh, euh, dugal ci loxoom ah, maanaam à travers euh, ñi ko fi toogal ci gox gi ñu ñëw ñu xool naka la ñu mën a jàppale ba mbënn mi nekk nga xam ne envoyé nañu te amuñu benn solution état nan la mën a def ba soulager population yi. waaw c'est vrai que soxla nañu ay infrastructure parce que fii on a la chance am ay espace am nañ ay espace mais espace yi pour ñu exploiter ko rek yombul parce que cité bi wax dëgg fa yàlla benn tubaab moo ko def bu tudd Gilbert c'est 649 parcelles. donc mu am quatre espaces verts am na école maternelle am école élémentaire am deux mosquées donc mais loolu nag euh, pour ñun ñu réaliser projet yi ñu fi bëgg munuñ ko on a pas les moyens donc moo tax aussi tout le temps dañuy lancer appel bi ñuy lancer daal c'est global si lépp loo xam ne tey dafay defar suñu cadre de vie ak infrastructure yi nga xamante ne tey dañ koy soxla yoo xam ne waruñ koo dem uti fu sori parce que espace moo gën a jafe te on a les espaces donc kon li gën a yomb moom mooy ñu ñëw jàppale ñu ñu réaliser projet yooyu incha allah. immédiatement euh, li ñu xaar ci société bi ba ba ci euh, autorité yi mooy ñu jéem a combattre le problème à la source donc ndox bi fu muy jógee ñu uti ay pexe set fuñ ñu koy yóbbu uti ay canalisation booru tali bi péage beeg yooyu pour que vraiment ndox bi bañ egg ci ñun sinon bu eggee ci ñun aussi bu ñu seetaanee du baax. parce que am ñun amuñu pexe amuñu moyen suñu moyen permettre ko donc duñu euh, daal loolu lañ gis actuellement comme solution sinon li fa nekk tamit actuellement aussi euh, ñu jàppale ñu négocier xëy na ak sédiment yooyu ba ñu mën a pompe ndox bi ñu sonal fële ah le temps ñu trouver une solution durable actuellement nii ñun ñëpp ay dëkkandoo lañ ñoo bokk dëkk parce que boo déggee Nouvel Horizon cité Idi Samba la ba SN City ah ba vraiment bon njaay loo daal en quelque sorte donc euh, ndox mi il faut pas mu doon source de problème entre ñun te commencé na nekk source de conflit entre les habitants te loolu la ñuy éviter. source de conflit parce que problème boo ko ndox xam problème mu ndox ndox foo ko yóbbu rek indi indi yóbbu nga keneen problème da nga transférer sa problème te du ko nangu comme ñun ñi dañu ko transférer donc c'est la raison pour laquelle day nekk source de problème de conflit. xam nga nekk na sous le conflit sax même entre euh, voisins entre habitants parce que di nga ñoo xam ne dañuy sëkk seen buntu kër bon c' est truc pour mun a accéder seen kër mais da nga gis sëkk boobu tamit dafa am ñoo xam ne day baare ndox bi jóge seen buntu kër pour dem donc looloo tax mu nekk source de conflit entre habitants kon mbokk yi ñoo ko gisandoo muy jafe-jafe bu metti bi nga xamante ne bi askan wi yeewoo ci cité Nouvel Horizon ñu ngi koy dund jamono ji nag ñuy sàkku ndimbalu nguurug Sénégal rawatina joroon bi nga xamante ne bi moom la ñu dénk wàllug inondation ak itam premier ministre di Amadou Ba ñoom nag nee nañu itam seen autorité locale yi nañu ñëw jàppale leen bu ko defee ñu mën a dund ci seen teewug bakkan ndaxte ci commune bu Sangalkam la ñu bokk ci département bu Tëngéej kon nag mbokk yi tey jii dig daje beneen yoon lay doon ci beneen ak yeneen i jafe-jafe askan wi.